di bonjour seede yàlla waaw kenn du ma contredire loolu kenn du ci teg teg dara te kenn du ci teggi dara n'est-ce pas hmm. sama waa kër fa li ci cité Konachop ñoo ngi lay ziar ñoom Baye Diap mi fi ñëwoon di la yooyu tamit Fama Ba bu baax a baax ah macha allah kon nag juma mubarak dañ koy tàmbale ak am ab di rek Papa Sane mhm. ah bu ko defee ñu fàttalante li fi jot a xew ndax am na coppite am déet mbaa dañ cee toll ba tey ñu mel ni ñu cang rek mhm. mag mag mag bu baax bi dañ doon wax ne euh, bu fekkee ni avancé wala reculer fi ne ndax boo taxawee taxawaay bi yàgg ñu newoon ci ginnaaw dañ lay raw kon nag dellu ginnaaw rek a fi ne kon ñu xool ba xam ndax ci 30 juillet bi 2021 ci at yi weesu ci ginnaaw euh, lan moo fi jotoon a xew ñu àddu ci 1981 Baye Assane les forces armées sénégalaises interviennent en Gambie en application de l'accord de défense entre les deux euh, pays suite à un coup d'État contre le président Daouda Kairaba Jawara perpétré par des rebelles menés par le nommé Koukoy Samba euh, Sagnan. jërëjëf yaa Seyda Asma Asma. naam. Gambie ak Sénégal benn réew la. kenn mënu fi def dara moo tax par exemple bu ñu nee corona am na Sénégal coow li bëri na te coow yi bëriwul Gambie mu ne waaw xanaa Gambie newul Sénégal. en passant <coughs> mais juste dire euh, une affaire simple mooy que ku koy Samba Sagna yàlla na ko yàlla yërëm. fii la ñàkkee bakkanam fii ci Sénégal euh, jamono bi loolu de am ñëpp dañoo jàppoon ni dafa bëggoon jël nguur gi comme ni ñu ko yàgg defee ci Afrique mais xam ngeen coup d'état yi am Afrique yëpp bu dee cent quatre-vingt-dix-neuf virgule nangam dafa am kenn kuy organiser coup d'état yi mooy jamono bi ñuy wax la France Afrique ay temps ñoom Bob Denard nga xam ne ñoom ay mercenaires lañu woon nekk ay ay ay ñoom seen xarañ yëpp. mu ngi jëm ci monte coup bu bon xam nga Gambie ak France laale wuñu dara. Mhm. kilifa yaa ngi ñuy déglu ak borom xam-xam yi mais dafa am <laughs> ak sew <laughs> la guerre du Biafra. Mhm. diggante Nigéria Cameroun fële ñëpp dañu jàpp ni xeexu anglo-saxon yi la. Mhm. pourtant du woon ñoom. ñan la. nasaraan bii dëkk hexagone. moo amoon intérêt samp entreprise bii ñoo wax Total multinationale. le blanc rouge la. ci stratégie. Mm. ci géostratégie. ñu teg plan ba nga xam ne moo leen di permettre bu coow li bëree ba bëri. total day ñëw samp te loolu noonu lañ ko doxalee xeex bi bu ñële Nigéria yi bu ñu amutoon fulla lool lool lool. Hmm. kon leneen lay wax. kon maanaam diviser pour mieux régner dañ ci ay. la même chose. bi ngay wax ni diggante Sénégal Gambie ci jamono boobu. Mhm. ci coup d'état boobu. Mhm. mu am fële ca guerre Biafra ba même chose bi moo am diggante Cameroun du nord. Mhm. ak Cameroun ba sa des nga xam ne ñii dañuy làkk anglais ñii di làkk français ruubekat bi di doxal rek moo tax africain yi bis bu ñu amee fulla. Ah. day waxal seen bopp te nag fulla bi. du weesu ñu forcé di bind suñu ay kàllaama. très pour régler suñu ay problèmes waaye waaye jamono boobu président Abdou Diouf taxawaay bu bu bu bu svelte mhm. bu intelligent la ci am boo xam ni mbir mi dépassé wul très bien mi ngi noonu ca 2012 la ñuy daal di àddu rek mu nekkoon euh, euh, suñu papa ji Moustapha Niass moom la ñuy daal di élire euh, fële ci assemblée nationale mu daal di jiite bopp bële il succède à Mamadou Seck Baye Assane bopp ba léegi moom moo nekk le président de l' assemblée nationale. waaw moom moom moom moom de moom de kenn defu ko li ñu defoon président Macky Sall. en 2008. Ah. te kooku mu remplacé ñu naan ko Mamadou Seck papa nu ngi laa nuyu ba baax. ñu ngi laa nuyu ba baax sekk maram ama kumbaak la daara euh. mbaaw sekk moo la ñey maam <laughs> kooku moo bokk ak démb sekk nga ne ma kon dafa bokk ci sekk sekk néegi mbaaw